par la brigade de recherche de Koloban. Il vient justement de sortir de son face-à-face euh, avec euh, les enquêteurs. Nous allons euh, tout de suite entrer en contact avec lui. Sir Lamignas, si vous m'entendez, bonjour. Ah, bonjour Pierre-Edouard. Alors, vous venez de sortir de votre face-à-face avec les enquêteurs. Qu'est-ce qu'on peut concrètement retenir de, voilà, de, votre discussion, de vos conversations avec les limiers il n'y a pas eu combat. Ils ont préféré carrément annuler la convocation et la considérer comme nulle et non avenue. Hello? Oui, et quelles, sont, euh, quelles ont été les raisons euh, invoquées Je vous ai dit nul et non avenue. et non avenue. Euh, une fois, mon père le disait concernant un, dossier, il disait que Layo Gagné, Gagné hmm. Finalement, ce que j'ai, c'est du béton. Et ils l'ont, c'est sûr, mes dossiers, ils l'ont. Donc, euh, finalement, ils ont trouvé qu'il vaut mieux annuler la convocation plutôt que euh, poser un faux débat. Oui, c'est quoi Ils ont finalement suivi l'émission incriminée ils Je vous ai dit qu'il n'y a pas eu combat. Il n'y a pas eu combat. Il n'y a pas eu face à face, ni avec des enquêteurs, ni rien du tout. donc euh, Sidi Lamine ñu jël ko ci euh, ci wolof dañ la woowoon tey foofu ca commissariat wala ca brigade de recherche bu koloban euh, finalement mbir mi fan la mujjee. mbir mi fi mujjee mooy nee nañu annulé nañu convocation bi maanaam lañ ma doon wooyee gis nañ ne jaru ko dara nekku fa kon defuma lu jar ñu woo ma et kon tant mieux ndax xam naa ne dossier yi ma am waxoon leen ne bëgg naa ko woon procureur procureur war na ko am. kon nag xam naa ne bu boobaa ju ko woon lu mu am ba pare xëy na dafay jàpp ne jaru ko waaye li ñu ma woon daal mooy convocation bi moom annulé nañ ko waaye man yóbbu woon naa samay këyit yëpp pour bu ma demee feesal leen ko woon leen ne samay preuve a ngi nii ci lépp loo xam ne wax naa ko te lépp lu ma mës a wax am naa ci preuve loolu laa pare woon waaye nee nañ ma jaru ko yaakaar naa ne ñàkk ñàkkuñ këyit yi ma am moom la ñu am rek boo xam ne mën nar leen a wax lu ñu xam jaru ko loolu laa jàpp

ñu xotti ko loolu lañ ma wax jox ñi ñu xotti ko jàppal ne lu mosta am la xam nga loolu sama baay dafa daan wax ne euh, euh, nu mu tëddee layoo gañu ñàkk a layoo gañee ko dàq loolu nag am lay wu jub moo koy faral. Hmm, waaye est-ce que yaakaaroon dafa am autorité bu nekk ci kaw bu intervenir pour yow. man de ñaanuma ko man de li ma man de damay wax demoon naa ci asiiru bu maam borom Touba maam borom tubaa nag dafa am lu wax dafa ne yaqiini yaqiini c'est-à-dire. ci araab dafa ñaari baat la yoo xam ne ñoo bokk nuñ leen bindee ak yëpp mu mu mel ni li ngeen di wax euh, am am ngeen ko ci rhétorique mais l'essentiel dafa ne yaqiin yi te mooy li ma gëm mu ne yaqiin yi mooy li may musal dafa indi ñaari baat yoo xam ne bokkuñu sens waaye ñoo euh, ñoo bokk nuñ leen di bindee mu mel ni nag man itam li ma gëm loolu mooy li may défendre kon autorité bu nekk ci gannaaw ak bu nekkul ci gannaaw en tout man su ma gëm-gëm yaqini nii ba maam borom Touba waxoon moom laa gëm sama pas-pas sama conviction bi ma taxaw fi ma teg samay tànk mooy li ma jàpp ne mooy li may musal kon nag nii yaqini yaqini laay wax bu maam borom Touba kon ni ma waxoon ba may dem ne asiru maal abraar yi la demee woon dëppee naa ak yaqini nii maanaam sama gëm-gëm sama pas-pas bu dëgër yalla def na mu mun ma musal musal na ma. Hmm. waaw léegi euh, finalement ban message ngay euh, lancé ñi nga xam ni ba ñu jógee nouvelle bi ba léegi ñu ngi woote di inquiété wu di ñëw ba fii sax euh, ci walfa Walfadjri. jarul ñuy jaaxle jarul ñuy tiit man comme ni ma leen wax rek toujours sama xeex mun mun naa ko xeex waxoon naa ko ci le 19 mars bi may dem. man kenn maa dem képp ku ñëwoon itam dafa fekk li ma gëm nga gëm ko rek ñu ñëw tase fa. ñi inquiété wu itam dafa fekk ma bokk ak ñoom luñ gëm rek dañu jàpp ne gannaaw ñoo bokk dëgg bokk gëm ko bokk di xeexal réew mi suñ ci déggee kenn koo xam ne feebar na wala dara dal na ko ñoom ñëpp na leen dal kon bokk ak ñoom combat tax waaye nag combat googu gannaaw dëgg la dëgg boobu mooy li nga xam ne moom lañu jar a jàpp moo tax. comme ni ma ko waxoon demoon naa ci assiru dëpp naa ci yàq yàq yi nii yi nii soo gëmee lu dëgër xamal ne lu dëgër loolu mooy li lay sogal kon nag dem naa ci assiru dëpp naa ci yàq yàq yi nii yi nii maanaam sama pas-pas bu dëgër musal na ma. waa finalement seen euh, face à face bi ak euh, enquêteurs yi ñaata minutes la durée. ta euh, seconde sax di réew ko fa fu ma dugg sax que fi ma toogoon di seetaan émission bi ba émission bi jeex foofu lañ ma daal di fekk rek ci saa si ne ma la convocation est annulée.

oui sa avocat ma ni est na ca brigade ba. nga dellusiwaat tuuti dama doon laaj eh, ba xam eh, sa avocat teewoon na ca brigade ba foofu tey. bi maa dawal bi may dem maay dawal bi may dëpp donc yooyu yëpp dama lay won ne la su ma àndoon ak dara ci kii rek li ko doon dawal oto maa ngi ànd ak eh, Abdourahmane Camara maa maa ngi ànd ak Serigne Mbacke Fall maa ngi ànd ak amadu faati Faye te ku nekk ci ñoom mën na jël oto bi dawal ko waaye man maa dawalal sama bopp pour seen xel dal ñi xam ne ki ñu àndal dégg nga dara changé wul ci moom mooy dawalal boppam au retour aussi maa nekk di dawal fi ne damay wax ak yow waaye maa ngi au volant au même au même moment. waaw léegi sunu naataangoo Ndeye Astou Gueye nag moom mbir yi fan la mujjee. brigade bi. comme ni ma la waxee rek convocation annulée luñ xotti xam nga ku la wax dara moo lay naan dellusiin wala def nga wala. tontul fii walla loo wax ci lii man daal li ma lay wax demoon naa ak samay preuve yu doy te yàkkamti woon naa toog fa la ma fay toog na mat lu mun di mat waaye waxtu wuñ soxloo ay dossier naa leen ko jox su ma fa toogee nag maa ngi fa toogee ma al abraar rek ndax wax naa ci ab ya ci ci poème yi ma def ne bi ma jógee di ñëw Jibril ànd na ak man waaw loolu wax naa ko ci poème yi may wax te du ma koy fooyee ay baat Jibril nag def na liggéeyam mu jeex tàkk Voilà, merci. C'était là euh, Sidi Lamignas, le PDG du groupe euh, qui euh, sort finalement la montagne euh, aura accouché d'une souris. Il n'y a pas eu marche, comme dirait l'autre. Il a été, la convocation a été tout simplement annulée de la vie même de Sidi Lamignas. Donc, les choses vont revenir à la normale. mu doon euh, mbirum euh, Sidi Lamine bi nga xam ne dañu ko convoqué woon euh, tey sa ngoon fële ca brigade de recherche bu gendarmerie bu Colobane finalement nee na sax mujjewul sax dugg jàkkaarloog enquêteurs yi fi mu toogoon lañ ko fekk ne ko mbir mi annulé nañ ko donc li tubaab naan la montagne a accouché d'une souris ñu leen di gërëm